Euh, kii la asmaa yi ah, asmaa yi baabu sujjóoti sahwi lii mooy buntab sujjóotu jumti wa sujjóotu sahwi auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu alayhi wa sujjóotam jumte sajdataani ñaari sëgg lay doon qabla salaami yi danga ko def njëkk dana ko def balaa mu sëlmal in naqasa bu wàññee sunnatun sunna mu akkadatan buñ feetle ko in naqasa su wàññee koo sunnatun maanaam xam nga sunna su ko dafa ko waroon def sunnatan su wàññee sunna mu ak akkadatan moo gënoon baax mu ne in naqasa sunnatun mu akkadatun day mel ne sunna bi moo wàññi te sunna bi moom lañ wàññi <laughs> ah? waaw sunna bi duut moo dañ ko wàññi kon nag dañ ko nasaboon moo gënoon ah, yëta sahadu dana taaya lahuma pour ñoom ñaar wa yusallimu dana sëlman minuma ci ñaar bu ti ko defee ba pare nag taaya tuuti ne asalaamu aleykum wa in saada su yokkee sajada na sujjóot baada salaam yi gannaaw am bu mu sëlmalee way naqasa bu wàññee nag wasaare moom léegi ñaari la boolante sajada dafay sujjóot qabla salaam yi kon nag day notal qabla salaam bi euh, sujjóot ko li annahu ndax moom kiy julli yuqallibu day notal jaaniba nag si côté wàññi gi ala jaatami siyaati côté yokk gi léegi day euh, day jël wàññi gi ëppale ko doole ca yokk ga wasaahi ku juum fi salaati ci julli ala ak aqsaam dafa nekk ñeenti pàcc njuumte ñetti xeeti njuumte moo am taaratan léeg-léeg yesoo day juum xànnax si fardin wàññi farata min faraay di salaati ci farata julleem sar farata mooy loo ne mënta ñàkk loolu moom farata bu ko bàyyee faraay yu def ko jange bi sujjóot sawi sujjóotam njuumte wala bu de munta ñàkk minal idéal dikkee bii ci moom da koy def soo ko defee ba pare nag yokk nga doo ko sujjóot ba salaam wa in lam yaskur bu ko fàttalikul saalik bu fàttalikul saalika loolu xataa salman ba ne ma ne assalaamu aleykum mu ne eh man de sëlmal naa bàyyi naa benn ko wala bàyyi naa sujjóot wala bàyyi naa fàtiha wala bàyyi naa yooyu wa taala mu yàgg ba talat yàqu na salaatoo julli ga julli ga moom ñàkk yàqu na su ko defee nu muy def wa yëpp te di ah daf koy tàmbalee tàmbaleehaat def beneen julli leen mu jeex benn wa taaratan léeg-léeg yësoo dafay juum xan fadilatan ci ngëneel min fadaayi salaat yi ci ngëneel yi julli kalkunoot yi lu mel na kalkunoot dañ koo ngëneel la ngëneel mooy li luñ sopp rek war a banaa wala kalhamdu mu fàtte ko aw takk takbirata wala kabar waaye des wala benn kabar benn kabar wasi bi saalika ay yu demee nekk noonu su ko wëccee loolu falaa sujoot de sujoot di ko war ci loolu fi sëñ ci dara min saalika si yooyu nga neel boo ko bàyyee sujoot war ko si waaw ma tee sa jëre taa yoo sujootee nag li sa in ci dara min saalika si loolu xam qabla salaam yi njëkk muy sëlma bat la yàqu la salaatu wa julli léegi moom bu si jotee xabla salaam ci yooyu kon julleem ko yàqu wa yëpp te di ah daf koy tàmbaliwaat ñaar yére yëpp kon da yàqu wataar tan léeg-léeg yesoo dafay juum xan sunnatin ci ab sunna min sunnati salaat sunna ni salaati ci sunna juum ka sóorit lu mel naka saar maa umil quran ànd ak umil quran dégg nga bi maanaam mooy fatiha saar wa ngay boole fatiha moom nga bàyyi aw takbiratayni wala ñaari allahu akbar aw tasawurayni wala ñaari taayi ñoom ñëpp nga bàyyi walla benn aw juloosin wala toog lahuma <coughs> taaye na waaye toogul wama asba salik ak lu mel ne ko noonu yii lu ci bàyyi fa yees diru dafay sujjóot li salik loolu kooku moom da nga sujjóot wala yëfootu du du rëcci maanaam du faat a sujjoot sujjoot albaad yu bi ni siyaari fàtte fàtte def sujjoot boo xam ne sujjootu gannaaw la du la rëcc woyes judduhoo dana ko sujjoot walaw sàkkarhoo même daf ko fàttale ko baada gannaaw weer min salaati ba mu ko jullee soo wëccoon sujjoot baada weeru yàlla su man i man dey fàtte woon naa ba ma tukkee ca koor ga bàyyi woon naa سجود تبارك السلام داف كوي سجود فام تخاو رك داكو سجود و ولو قدم سجيت هون تي السجود البادي سو فيكون سجود بارك السلام لي دا غا ورون سجود بارك السلام غا قبل السلام او اقرا ولا ما يخي السجود القبلي ولا سجود قبلي غورن كو ديف سجود قبل السلام نغسل ما با فاري سخل داي ني إيه. man de man sujud naat dama waroon sujud dama seulement naata waroon dama sujud qal salam aj sa woo day ko saalika loolu kon boo defee qabla salaam mën ngaa remplacer baada salaam baada salaam mën naa remplacer qabla salaam wala tabtuk du yàqu salaatu julleem kooku du yàqu julleem xaalal ma sóori ci li gën a siiw nga dégg na kon borom am nañu tàng masala ñenn ñi ne ah julli nga yàqu rek ñenn ñi déedéet du yàqu julli moo tax gis nga seen wax yi ñoom seen xel lañ ko waxee rek ah <laughs> moo tax Seex Tijaan mu ne yéelantoon ña am borom xam-xam yoo xamante ni mën nañoo génneel njuumte njuumte yi ndaxte ay wax yi la waaye yow est-ce que yaa moom yàqute sa yàqule bi moom ndax yow yonent moo la wax yàqu na wala waxoon nañu wax yàqu na yow yore woo yàqute ak yar dagal a <laughs> ah, dégg nga waaw man lam yedri ko xamul macha allah lam julli asalaasala ndax ñetti ràkk laa def aw is na tey. wala ndax ñaari rakk la def fa innahu kooku yëpp nii dafay jokk xaalal aqal kon day jàpp ne ñaari rakk laa def mu defaat bu dee julli ñeenti rakk mu def yeneen ñaar rakk bu dee julli ñeenti rakk mu def beneen rakk bu dee julli ñaar rakk moom kooku day sëlmal woo yaati mu dikkee bi ma sàkkalam si fiction waaye ci mu sujjóot ba salaam yi gannaaw boo xamante ni sëlmal